borom madina yaa di sëtub Seex Bamba silfalaay borom madina yow yaa ko jub te jub te jublu yàlla moo mbokki julit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci ndigalu Serigne Cheikh Mbacke Madina xalifa Serigne Mbacke Madina yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér yaram Serigne Cheikh Gaynde Mbacke président fédération nationale islaahu daarayni waa kër Serigne Mbacke Madina waa section bu Touba ci njiitul soxna maam Ami Mbacke Qahira ak Serigne Cheikh Lo Daïra ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen massawu leen ci tolluwaayu jamono ñooy am mbégte di yëgal mbokki taalibe yépp assemblée générale bi ñu baaxoo amal at mu jot ren mu war a doon alxames fukki fan ak ñeent ci weeru janvier 2021 ca Touba Daaru Xudus kër Serigne Moustapha Madina bu 3 heures jotee daayira bi ko aay ren nag mooy nuuru daare ni bu Serigne Moustapha ibnu seriñ Mbacké Madina ci njiitu Serigne Abdouloo ak soxna Fatuloo ñaan kon mbokk yi baa ngi noonu woote baa ngi noonu ensemble général ba islaahu daaray nii waa section bu Touba di ko wootee mu war a doon alxames fukki fan ak ñeent ci weeru janvier 2021 ca Touba Daaru Xuduus kër Serigne Moustapha Madina bu 3h jotee soxna maam Ami Mbacke Xayra ma ngi soññi góor jigéen képp kuy ñëw ñun ñëpp nañu maase sol baxa te teel a ñëw ginnaaw loolo tem ñoo ngi bàyyiloo xel mboolem ña fay teew ñu respecté mesure barrière yi maanaam tegtal ak dénkaane yi nga xamee ni ñiy saytu wàllu wér yaram joxe nañu ko ci tolluwaayu jamono ñun ñëpp nañ maase jëfe ko ca bis ba ak ginnaaw bis ba soxna si ma ngi sant ñëpp di soññi ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu ndaje mu ñu yaatal muy ensemble général ñu fas yéene waxtaane islaahu daaray nii waa kër Serigne Mbacke Madina section bu Touba Mbacke ñoo ngi ñaan ku fa teew yàlla faj sa ajo ci barkeb Serigne Touba barkeb Serigne Mbacke wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Madina yaa di sutub Cheikh Bamba silfalaay borom Madina yow yaa ko jub te jub te jublu yàlla moo tax nga am garaat fa buur ba yàlla